yéenekaay yu bëri tey dikkaat nañu ci dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko ñeel corniche ouest réew mi quotidien du ñu xamal ni chantier yi nga xamante ne sumboon nañ ko foofu kii di njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay jël na dogal ngir daal di dakkal lépp yéenekaay groupe réew mi network bi mooy nettali kàddu yi nga xamante ne moo tukkee ci Pierre Goudiaby Atepa architecte bi nga xamante ne moom ci wàllu boppam yàggoon na xeex lu nuy caxat-caxatee littoral bi ci Ndakaaru caxat-caxatee kay jeex na Vox di xam ne ni kon ñiy occupé corniche bi ci boppam bu yóbboo ñu xooli leneen bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci architecte bi di Atepa démb ci ab émission ci RTS moom Pierre bi dikkaat na ci li nga xamante ne moom la jàpp ni njiiti réew mi Bassirou Diomaye fay war na ci sukkandiku bokk na ci buuru Maroc bi nga xamante ne jot naa toj lu toll ci ñeenti téeméer ci ay immeuble ci li nga xamante ne moo jege géej gi fu sorewul dara sax Sénégal di Côte d'Ivoire tamit Alassane Ouattara def na lu ni mel moo tax moom Atepa ne am na yaakaar ci taxawaay bi nga xamante ne Diomaye Faye daal dina koy am dogalu Bassirou Diomaye Faye mu ngi ci xët bu njëkk yéenekaay bi di Le Quotidien suñu naataango yi di xamle ni Atepa xeer bu mag jëmale ko ci ñuy jëfandiku peggub géej gi ci ndakaaru waaye yéenekaay ma jàmbal jaan bi yamu ca ndax xam na ni kon bile taxawaay bu njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mun na am ay njeexital ci état bu Sénégal ndax boo moytul xeex bu metti ci wàllub yoon moo ko ci xaar luy xaar gouvernement bu bees bi bokk na ci honneur disponibilité waaye tamit humilité ak compétence le soleil yéenekaay kaay dikkat na ci ñeenti càkkuteef yi nga xamante ne président de la république Bassirou Diomaye Faye daan na ñi mu tab yees loolee ci samedi gi la ko doon xamle ci ab séminaire muy ndaje bi nga xamante moo ko doon sekk ak i jëwriñam waaye tamit ak premier ministre am bi di Ousmane Sonko li tukkee ci séminaire googee critique yéene kaay ci dikkaat tamit yéene bi wax na ci ñeenti ponk yi nga xamante ne njiitu réew mi bëgg na ci sukkandiku ngir doxalin bu ñoŋ ñeel gouvernement bi moo tax critique duppee ko Jomaay formula fu ñuy xaaree kay Bassirou Jomaay Faye bokk na musaafara dundu gu cher gi waaye tamit location bi enquête yéene kaay dikk jàpp ni mooy li nga xamante ne moo war a ëpp bopp kii di njiitu réew mu bees mi ndax laata moom ay njiitu réew yi nga xamante ne ñoo ko jiitu ci bopp réew mi daanaka tële woon nañu ci li nga xamante ne moo jëm ci dundu cher gi kàdduk Alla Dieng bu UNACOIS yeesal ci biir yéenekaay bi di xam ne ni kon lu jëm ci wàllu subvention bi mënul nekk rek luy wéy Momar Ndaw bu seen moom mel na ni kuy jàmbaraamu tuuma ñii di commerçant yi ndax nee na bénéfice gu ëpp gi ñuy wër mooy liy indil askan wi ay jafe ngir saafara jafe-jafe yooyee Bassirou Diomaye Faye sàkku ab plan d'urgence plan boobee nag maître Massokhna Kane mi jiite SOS consommateur am na ci li mu ci xalaat ba ci sax li nga xamante ne moo jëm ci location bi accident yu métti ñuy dundaat ci Sénégal moom avocat bi nekkoon ganu grand toral daal ci dikkaat l'observateur moom dikk na ci ay xeetub slogan yi nga xamante ne njiitu réew yu fi jaar ci Sénégal dana koy indi rawatina ci seen ndorteelub nguur te yu ci bëri mu jàpp ni yenn saay duñu ko jëfe ba mu mat bokk na ci kàddu yi nga xamante ne maître Abdoulaye Wade ko yëkkati yëkkati ca ndortel ga il faut travailler toujours travailler beaucoup travailler kii di Macky Sall mi nga xamante ne dafa doon bàkkooy tamit la patrie avant le parti tey ji ñu dégg Bassirou Diomaye fay di wax jub jubal jubanti ndaxam dina antu muy li jaaxal l'observateur beneen yéenekaay Les Échos wax na ci càkkuteef Barthélémy Diaz moom maire bu Ndakaaru jamono ji tembe bëgg naa daje ak njiitu réew mi di Bassirou Diomaye fay ngir lu ñeel ay projet am ca ville bu Ndakaaru moo tax suñu naataango yi ni kon doomu Jean Paul Dias bi ci boppam envoyé na ba noppi lii di càkkuteefam ca palais de la république naka la ko defee woon ak kii di Macky Sall Macky Sall ne fàng ci xët bu njëkk L'As quotidien yéenekaay bi di ñu xamal ni kii di maître Ciré Clédor li nekkoon kenn ci avocat Ousmane Sonko yi jamono ji mbébétam lépp mooy ñu fexe ba topp njiiti réew ma woon ci wàllub yoon ndax li mu koy jiñ bokk na ci haute trahison waaye ndaxam mbébét boobu mën na antu yéenekaay bi dénk ci kàddu professeur Ndiak Fall loolu mënut a yomb li yomb te xeex kay mooy trafic drogue bi ak faux yi ci biir réew mi Sud Quotidien dikk na ci mbir moomee nga xamante ne jamono ji tax na ba mu jàpp ni Sénégal ci boppam moo nekk ci haut risque ndax xeetu drogue yi nga xamante ne ñu ngi koy teg loxo ci réew mi waaye tamit ay faux xaalis gu lewut te lépp boo ko xayma ci ay milliards la muy indi lool ay jafe-jafe ci koom-koomu Sénégal libération moom dikk ci beneen mbir muy xeetub accident yu nemmeekuwaat ci Sénégal yéenekaay bi def ci sax ab xayma ne diggante 2017 ak 2020 lu toll ci ñetti junni doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan sa Gana gay moom ñàkkagul dara ci xarañ te fom Rewmi Sport dikkaat na ci week-end bi nga xamante ne kon gaynde yi def nañ ko ci seeni club ca biti réew muy xam ne ni kon milieu de terrain sénégalais bi tax na ba clubam bi di Everton